الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بك جلدي gannaaw ba ñu santee sunu boroom subhanahu wa taala di feddali ne moom dong moo yeeyoo ñu koy jaamu di ko ñaan mu julli ci sunu yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla sunu borom nee na ay jullit ñi ragal leen yàlla su ngeen ko defee dana leen may ak ràññi baal leen seeni bàkkaar ca mooy borom ngëneel yu mag yi sunu xutba tey mi ngi jëm ci jaamu yàlla gu rëy ca jaamu yàlla googu mooy sàkku wërsëg mbokk jullit nañu xam ne lii di wërsëg sunu borom yàlla moo ko gàddul ay jaamam amul benn doomu aadama wala benn bàyyuma amul lenn luy naaw amul lenn lu nekk ci biir géej dafa rëy ne baleine dafa tuuti ne ma ay microbe lu dul sunu borom yàlla moo gàddu wërsëgam borom bi nee na lépp lu nekk ci kaw suuf man yàlla maa gàddu wërsëgam mu ne ay yéen ñu xool leen ana ñaata daab ba ngeen gis ñuy dox ci kaw suuf amuñu magasin amuñu sàq te bés bu ñu xëyee daañu lekk bés bu ñu xëyee daan naan yàlla mu ne maa leen di wërsëgal yéen doomu aadama yi di leen wërsëgal mu wax ñu ci beneen aaya ay yéen doomu aadama yi ak jinne yi binduma leen lu dul ngir ngeen jaamuma amma bu dee na wërsëg man yàlla maa gàddu wërsëg woowee loolee kon mu ñuy won mbokk ñun suñu ñëw ci kaw suuf ñëw ñi fi ngir nekk ay maçon wala ay menuisier wala ay fóotkat wala leneen mais dañu fee ñëw ngir jaamu yàlla subhanahu wa taala amma sunu borom yàlla moo ñu fekke woon wërsëg bi ñu nekkee ci suñu biiru yaay diñ ko fa jox gannaaw loolu moo ñu gàddul suñu wërsëg ba baa ñuy dellu di dugg ci biir bàmmeel mbokk julit borom boobu nañu xam ne moom moo ñuy wërsëgal waaye mooy ki nga xam ne moo gënale suñuy wërsëg ëppalante ko loolu jullit nga war koo gëm day tax nga sant yàlla doo roy sa bopp sunu boroom yàlla subhanahu wa taala nee na maa leen gënale ci wërsëg heure loo bari bari la soo xoolee xoolaat gis ku la ëppale fuuf waaye loo ñàkk-ñàkk boo xoolee sa gannaaw gis ñoo tane fuuf loolu kon lu jullit war a gëm di war a bàyyi xel boroomam di ko sant doonte ne mbokk wërsëg woowu yàlla nee na maa ko gàddu war koo gëm waaye mu am lum ñu sant mooy jóg leen ngeen sàkku ji wërsëg woowu su ko defee mu ne dox leen uti wërsëg amma bu dee jaamu yàlla mu ne daw leen jëm ci jaamu yàlla loolu mbokk lan lay jàngal mooy jaamu yàlla mooy priorité ci kaw wërsëg ci kaw sakku wërsëg moo tax mu ne ajjuma ngi nii su ngeen nekkee ca tool ya nekk ca magasin ya wala atelier ya ba dégg ñu ne noonu dal nañ juma xamal ne lii ma nekk day jaamu yàlla la waaye priorité bi mooy naa dem julli ji sunu borom mu ne bàyyi leen loolu fas aw ila zikrillah wa zarul bay daw leen uj tuddug yàlla googu ngeen bàyyi jënd ak njaay ay yéen mbokk julit dañoo war a xam ne yàlla mooy joxe wërsëg doonte ne doomu aadama yi séddilikoo nañ ñaari parti am na ci ñenn ñoo xam ne dañoo jàpp ne wërsëg moom jortu wuti soo xëyee toogal rek lala yàlla wërsëgal dana ñëw ci yow lenn ci sufiyanke yi ak ñenn ñi réere diine waaye mbokk déedéet du noonu sunu borom yàlla moo ñu tëralal ne wërsëg waa ngi ni maa koy dogal waaye moo ñu sant ne jóg leen ngeen fàggaju ko loolu tax mu a sax musuma yónni benn yonent lu dul ne daanañ dox ci marché di sàkk wërsëg illa innahum la yamshuna fi l aswaq la yakuluna taam wa yamshuna fi l aswaq kon loolu dañoo war a gëm man day maa ngi jóg di sàkku ji waaye gëm naa ne yàlla rek ma mën a jox du ma jot mukk lu dul sama wërsëg am na ñeneen ñoo xam ne dañoo jàpp ne loolu ay problème la man naa ñaq li ma ñaq lay am am naa bàyyi xel yàlla dañ koo fàtte ba lu ci doomu aadama yi jamono bi ñuy sàkku wërsëg dañuy bàyyi jaamu yàlla wallahi ay nit nettali nañ ma jóge ci réew yu safaanoo lu bari fi jóge dem Europe wala dem Amérique dañuy jàpp ne fii mu ne su koo booleeg jaamu yàlla bal am na ci ko xam ne ni lu lu mu tontu ko doon woo ci julli mu ne ko o oh, booy diine ji bàyyi naa ko aéroport dakaar su ma delloo danaa ko jëlaat waaye fii mënumaa boole liggéey bi ak jaamu yàlla mbokk ko mel noonu xamul lan moo taxoon yàlla bind ko ci kaw suuf ku mel noonu xamul ne wërsëg ba muy dabu ci loxo yàlla la nekk ku mel noonu xamul ne am nañu ko ëppale fuuf ay kees lañ leen dugal delloo si leen Dakar loolee kon mbokk dañuy gis ne njuumte mu paase loolu su ko defee mbokk jurit da ngay gëm ne yàllay wërsëgal nga gëm ne doomu aadama bi da nga koy sàkku ji ci sa boroom loolu moo lay yóbbu ba wërsëg doo ko jële ji fu xaraam nga la waay jurit bépp liggéey boo xam ne dañ nga caa nekk nga ñu proposé la ko nga xam ne lu xaraam la wala yaa nga ci woon gannaaw ba nga xam ne lu xaraam la bàyyi ko ci yàlla tax yonent bi alayhi salatu wasalaam na man taraka cheyan lillahi awadahu llahu ma huwa xayrun la képp koo xam nii dafa bàyyi dara ngir yàlla rek a tax mu ba ko yàlla dana ko wuutalal lu gën loolee ak loolu lu mën a doon ci mbiru àdduna ay yéen mbokk julit xam leen ne sunu borom yàlla tëral na ay yoon yoo xam ni ki ca jaar day dana am wërsëg wu dagan wu teey am maa ku ko teggi mën ngaa bari la ci àdduna waaye bari la googu lan lay doon mooy nattoo bu la yàlla di nattoo ngir say bàkkaar gën a bari ci kaw suuf moo tax sunu borom mu ne yéefir yi bu mu la yéem seen alal yi ak seen doom yi yàlla da leen a bëgg mbugal ci loolu ci àdduna ak àllaaxira ci yàlla moo xam nu mu koy defee loola tax lu bari ci doomu aadama yi dañuy xool yéefir yi bari le seen oto yu taaru yi seen dëkkuwaay yu taaru yi ñu jàpp ne man lii dama ko war a am ba dootuñu xool fan la ñuy alal waaye mbokk julit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kullu jasadin nabata bi suxtin fa naaru awlaa bi xam ne dangaa jël alal bu araam di ko lekk ba daal di amee yaram yaram boobu sawara mu ca gën a yey looloo tax kaay jàpp yoon yi nga xam ne soo ci sooboo insha allah danga am wërsëg woo xam ne dana ànd ak sa ngërëmal boroom yàlla subhanahu wa barkeel loolu la ko ñeel mbokk bokk na la jiitu ci loolu mooy taxoolal ak jéggulu sa boroom baril di wax astaghfirullah foo mën a toll ci la gën a gàtt ak façon jéggulu borom bi yépp di tuub la nga xam ne mooy say bakkaar ki nga xam ne imam hasanul basri benn waay ñëw na ci moom fekk mi ngi jàngale mu ne ko imam ñun day suñu waa dëkk dañoo tawluwul mu ne ko bu ngeen demee dee leen bëri wax astaghfirullah di tuub dellu ci yàlla keneen ñëw na ko imaam ñun day man dama wër ba ooma dara mu ne ko boo demee del baril di jéggulu yàlla keneen ñëw na ko imaam man dama yàgg ak sama soxna amuñu doom mu ne ko soo demee day leen baril jéggulu seen boroom gaa yi mu toogaloon na ko ah waa yow imaam ñii fi ñëw ak seen soxla yu safaanoo yi ñoom ñëpp waxoo leen lu dul benn ordonnance te mooy dee leen baril wax astaghfirullah di tuur seeni bakkaar mu ne waxuma leen dara lu jóge ci man waxuma leen lu dul li yàlla wax yàlla bi mu yónnee yeneen ci yàlla nuux ci xeetam daf leen wax ay sama xeet jéggalu leen seen boroom kuy bale ay bàkkaar la su ngeen ko defee dana yónni asamaan mu tawal leen kon ñee seen dëkk am maral seen problème dana réglé gannaaw ba dana leen ubbil buntu xéewal yokk seeni ah, alal kon kii di jàmbat ak ñàkk gis ngeen bunt baa ngi noonu dana yokk seeni doom kon kii jàpp amul doom bunt baa ngi noonu lii gannaaw ba dana leen génneel ay dex ak yolnde ngir seeni jardin naat kon mbokk ordonnance baa ngi noonu boo xamee ni sa dund mi ngi xat yaa ngi sa loxo jotul sa gannaaw nga la way soo toll xoolal bakkaar yi nga jàpp ne nga ci nga koy tuub di dellu ci yàlla waaye soo toll sa làmmiñ bi na takkoo ak astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilayhi di tuub jëm ci sa borom borom borom boobu subhanahu wa taala noonu la ko waxee ci place yu bari ci téeréem bu tedd bi loolu la yonent yàlla ruut di waxee tam jéggalu leen seen borom ngeen tub dellu ci moom kon day dana leen bànneexal bànneex bu baax ba baa jamono di ja xam ne ca ngeen di faatoo ay yéen mbokk jurit bokk ci caabi bu mag ci caabi buy ubbi wërsëg ci caabi bu lay may ay xéewal mooy caabi ragal yàlla subhanahu wa taala ragal yàlla mooy lan mooy la nga xam ci jaamu yàlla yi nga def ko la nga xam ci bakkaar yi nga moytu ko sunu borom nee na ku ma ragal day danaa ko génne ca xat-xat yam nekkee ca danaa ko wërsëgal fu mu foogewul woon ne xéewal gi dana ma mës a dikkale fii wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib di benn aaya boo xam ne bépp ndaw war na ko gannaayoo képp ko ragal yàlla sunu borom mu ne danaa ko génne ci ay xat-xatam danaa ko indil wërsëg foo xam ne foogewu ko fa woon aka bari ay ndaw yoo xam ne keroog bi seen njàng yàqoo lañ jàpp ne àdduna tukki na aka bari ay ndaw yoo xam ne keroog bañ tukkee ñu delloo leen lañ jàpp ne àdduna tukki na sunu borom yàlla xëy xëy ubbi leen ay bunti xéewal yoo xam ne dañ naan cey bu sama njàng muy yàquwul woon wala tey sama tukki bi yàquwul woon kon mbokk loolu dañ cee war a bàyyi xel bu baax noonu ko yàlla dige kenn ci ñun noonu la ko dige mi yépp mu ne bu doon te ne waa réew mi dañoo daje woon ci ragal yàlla day danaa ubbi bunti asamaan yi ak suuf xéewal leen ci lu nekk mbokk Sénégal buñ naan découvrir nañ fi gaz ndax gaz tubaab yi ñooñu ko fi suulaloon am ñoom la jorog alburi ñooñu ko fi suulaloon bokk loolu sunu borom yàlla moo ko fi indi lépp lu ngeen xam ci pétrole xam ci lu mën a doon yàlla moo ko fa def naataange bee tey am Arabie Saoudite lan moo ko def mooy yàlla ka fa def ci pétrole am moo tax sunu borom ne bu doon waa dëkk bi ragal nañ ma mu ubbi barkey asamaan ci taw bu barkeel ubbi barkey suuf ca meññeent mu barkeel ak la ñuy mën a jëfandikoo gaz laam pétrole laam ndox lam lu mën a doon ay yéen mbokk jurit bokk na sabab yi gën a màgg ci yàlla ubbi la sa wërsëg mooy nga daal di sukkandiku ci yàlla moom sunu borom mu ne sabatahu inda allahi rizq day leen sàkku ci yàlla wërsëg ca xam ne mënoo muusa ko moccet mënoo nekk agresseur mënoo nekk truand ba am lu yàlla dogalul mu yëgsi ci yow abadan li yàlla dogaloon mu yëgsi kon yàlla moomu dee ko ñaan de ko ci moom sunu borom mu ne ku wékku ci man dana ma doy loolu tax xatta yonent yi alayhimu salaam ñoom ñépp da ngay fekk ñu doon ñaan yàlla ibrahima keroog ba mu dëkkalee njabootam nga màkka bokk na lu mu wax i yàlla sama njaboot gaa ngi nii ma dëkkal sa néeg bi yal na nga def xolu nit ñi jéng jëm ci ñoom waaye yal na nga leen wërsëgal ay wërsëg wu dagar mu tey ngir ñu man man laa na naka noonu itamit nga war di ñaan yàlla mu ubbil la bunte wërsëg yi gannaaw ba itamit nga xam ne borom boobu subhanahu wa taala moom mooy ka nga xamee ni nii moo yor wërsëg mu ne wa in min cheyin illa indana xazainuhu amul lenn loo yaakaar ci kaw suuf lu dul magasin yi ci yàlla la nekk loolee alal la loolee doom la loolee lu mu mën a doon sunu borom mu ne caabi magasin yépp sama loxo la nekk man rek may joxe kon nga la way deel dellu ci yàlla moomu de ko ñaanu del yow xaaju guddi di ñaan yàlla del fajar di ñaan yàlla boo jullee ba pare del ñaan yàlla del sakku képp koo man mu ñaanal la yàlla subhanahu wa taala na noon way jur laak yu noonu ca nga moytul ma gën jaa màggi moytu tariyaax boo xamee ne nii amul dara taxul dara nga ñëw ci moom ne ko ñaanal ma ngir mu ubbil la sa wërsëg mbokk loolu lu xaram la mënu ko loo ca mën a am jàpp ne moo ko def yaa ngi bokkaale ak sa borom ngal la waaye dee leen ñaan seen borom jalla wa ala doyloo seen seen borom doy jalla wa ala yàlla mi la fàttewul woon ba nga nekkee sa biiru yaay du la fàtte bi nga nekkee tàllal ay loxo di ko ñaan loolee di mbir moo xam ne ñu war caa bàyyi xel bu baax mbokku jurit nañu xam ne jaamu yàlla yi ñu yàlla sant heure boo koy sellal di ko rafetal yàlla subhanahu wa taala day yokk sa wërsëg loolu la yonent bi alayhi salaatu doon ñu wax naan day leen tegale aj ak umra loolu day day yokk wërsëgu jàmm bi donte ne boo xoolee aj makka ay millions nga ciy dépensé waaye sunu borom mu ne déedéet wàññiwul sa wërsëg day yokk sa wërsëg gannaaw loolu mbokk lii di julli gi amul lenn lu gën a mën a barkeel wërsëg lu mel ni julli sunu borom mu ne wa amur ahlaka bi salaati wastabir alayha laa nasaluka risqan nahnu narzuquka wal aqibatu li taqwa saxaal di taxawal julli ca yàlla na nekk julli ga yeneen te ba alayhi salaam doon julli nga jugal sa njaboot ñuy julli yal nañ jullee na yonente bi alayhi salaam doon jullee sunu borom yàlla mu ne day ñun laa li mën a wërsëg maa lay wërsëgal donc bépp kër goo xam ne bëgg nañ jàmm am fa yàlla di fa wàcce wërsëg wu dagan ngan la waay nañuy saxal julli di rafetal seen julli loolee liy gën a màggal seen wërsëg la mu bokk mbokk benn caabi ci caabi ibu wërsëg la nga xam ne moom mooy jokk say mbokk yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ku bëgg yàlla yaatal wërsëgam ay barkeelal ko yal na bàyyi aw turam gannaaw ñu koy waxal lu rafet lu koy fekki nga la waay nay jël li nga xam ne ay mbokkam di leen jokko yonent bi alayhi salaam dañuy wax ne yàlla dana yaatal xéewali ay yéefar même bu ñu ay yéeféer la ñu fekk ñu ngi jokk di rafetal la nga xam ne mooy diggante seen i mbokk loolu ñu bàyyi ci xel bu bari rawatina jeunesse bi nga xam ne tey xamatuñu lu ñu mbokk lu ñu xam rek mooy la nga xam ne mooy xarit ay mbokk jurit xamal ne bokk na luy yokk sa wërsëg di ko la nga am akas néew nga cay jël di joxe sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañ gannaaw bi sunu borom ne lépp lu ngeen dépensé danaa leen ko wuutalal ca man maa gën ci kiy wërsëgal yonent bi alayhi salaam nee bu nekk yàlla dana yónni ñaari malaaka kenn ki li muy wax mooy yàlla képp ko dépense ci yow na nga ko wuutalal li gën képp koo xam ne keneen ki naan képp koo xam ne dafa gis lu buntu mbaax ci defu fa yàlla na ko indil ay tolof tolof loolu tax yonent bi alayhi salatu wasalaam lu ma sal ñëw ci loxo mu ne bilal dépensel daana wax bilal dépensel bul ragal ki wuutal mooy borom arsh ca kooku dara tëwu ko ay yéen mbokk julit nañ góorgóorlu delluwaat xam ne sabab yii day bokk na ca itamit la nga xam ne mooy génn sa réew nga dem gàddaay na doon loolu yàlla subhanahu wa taala moo tax ngir rawale sa diine wala da ngaa dem feneen di wuti diine te di na message bu ñuy yóbbante bépp ndaw bu génn réewam dem ci beneen réew xamal na mbokku génn googu jaamu yàlla la yeneen ci bi ànd ak i sahabaam benn waay romb leen ak i buumam di dox doxin bu dëgër di dem lenn ci sahaaba yi daa di ne ah, ay waay ak kii ñu ñëw jihad fi sabilillah yeneen ci baale soom ne leen bu dee ne day dafa génn am na ay mag ñoo xam ne mënatuñu liggéey mu dem di liggéey ngir lum leen yore mi ngi ci sabilillah su dee dafa am ay ndaw ñu mën a guri liggéey muy dem ngir bëgg leen a yor mi ngi fi sabilillah su dee ne sax dafay dem ngiree rek ba ñu dem di ñaan kenn mi ngi fi sabilillah donte ne mbokk ñaan boobu tey am na ñoo xam ne moom lañ def liggéey ay nit ñoo xam ne pattuñu laggiwuñu ay góor ki jigéen ñoo fees jàkka yi léegi amul benn waxtu booy sëlmal lu dul nit taxaw billahi wallahi taala yi ñetti fan a ngi taanu moo sama kër mbokk loolu benn musiba la boo xam ne dab nañu ci at yi te boo delloo fanweeri at ci gannaaw amul woon waaye xaaral ma bégal leen yonent bi alayhi salaam nee na amul kenn kuy ubbi buntu laaj lu dul yàlla ubbil ko buntu ñàkk amul kenn kuy ubbi buntu laaj lu dul yà ubbil ko buntu ñàkk su ko defee kon ñu góorgóorlu ci loolu doonte ne mbokku julit bari na ay nit ñoo xam ne dañ ne ah waaye man maa ngi bari wax istigfaar ba sonn ma dara maa ngi nekk jokk naa sumay mbokk ooma dara maa ngi sarxe ma dara hey mbokk julit li yàlla wax wallay muy dëgg li yàlla wax muy dëgg yàlla waxu ne nga jox ma tey ma jox la tey sunu borom yàlla moo gàddu sa wërsëg mën na am wërsëg woowu mu dencee la ko fa ci yow wallahi benn góor goo xam ne mën naa am julli si la ci jumaa ji sax mi ngi may netti ni jamono jafe-jafe yuñ jafe ju ñu sonnoon daan jóge kokki ci Louga di dem fële nga xam ne mooy biir Saalum di jeexaat gerte gu ñu dund la njabootam tey jii xam naa lu jege ñett wala ñeenti étage yoo xam ne ay doomam ñoo ko moom mi ngi tëdd nekk buur mbokk loolu dañuy xam ne wërsëg ci loxo yàlla subhanahu wa taala la nekk mën na am mu jox la ko comme la koy joxe moo ko xam góor gi care mi ngi jullee ñun fii ci ji mi ngi wax koo xam ne bisu tabaski la mas a xaru seen dëkk dafa dem wër-wër tabaski amul dara mu ñëw xaru waaye mu ne jamono ji muy wax doom yooyu mu bàyyi woon ñëpp ay millionnaire lañu kon mbokk wërsëg ci loxo yàlla la nekk mën na la ko jox directement mën na la ko jaarale sa njaboot kon li yàlla wax def ko rek mooy sabab yi ma leen wax sax leen ci fexe leen di bari istigfaar ragal leen seen boroom jokk leen seeni mbokk dee leen saxal ñaan dee leen jël la ngeen am di ca joxe ce yàlla tax gannaaw ba itamit ngeen doyloo la leen yàlla may mbokk wërsëg bi gën a rëy mooy doylu doomu aadama bi mën ngaa am ay milliards ba pare nekk faqir ca moo dina boo doyluwul da ngay gis ne dara du la doy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanañuy wax ne la nga xam ne mooy ah, ki yàlla may mu dugg ci lislaam lam amukas néew mu doyloo ko ku mel nii day na xam ne nekk na buur ci buur yi su ko defee ngeen di xool ña leen tane ngeen di xool ña nga xam ne yéen ña leen tane bañ a xool ña nga xam ne ñoo leen tane ca xam ne képp koo xam ne xëy nga yàlla may la jàmm nga am loo lekk am foo tëdd xamal ne kenn ëppaleetu la yow ab ab boor nga ñu góor góorlu tamit di delluwaat di dimbali ñëpp ñoo xam ne tane nañu leen mbokk yàlla mi yor sëdd wi nee na irhamu man fil ard ko man fis sama ku nekk la nga tanee sa morom dimbali ko ca su ko defee yàlla mi nga xam ne moo eh, yor lépp dana doon ko xam ne nii dana leen dimbali loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax ca góorgóorlu itamit sakk wërsëg baño a dox mukk suñu diggante ak jaamu yàlla heure boo xamee ñi ni julli jot na lu ñu nekkoon nañ ko ca bàyyi bépp yoon bu ñu ibbil ci wàllu sakk wërsëg jaay sàngara la affaire carte la lu mën a doon boo xoolee ne xaraam na bàyyi ko ca yàlla tax sunu borom yàlla subhanahu wa taala moom la ñuy wax ne ya ayuha alladina amanu la tulhikum amwalukum wala awlaadukum an zikrillah wa man yafal zalika fa ulaika hum alxaasirun nga la waay yéen julit ñi li jën ci seen alal fexe seen doom yi réussir ba mu dox seen diggante fàttaliku ko yàlla ku ko def day jàpp ne gañe nga ndax gañe nga ci ay millions yu bëri sunu borom mu ne déedéet yow da ngaa bokk ca ñi nga xam ne nii dañoo perte loolee mbokk julit kon mooy la nga xam ne moom la ñuy bàyyiloo xel suñu bopp di leen ko loo xel yal na yàlla subhanahu wa taala wërsëgal ñu wërsëg wu dagan ca tey wërsëg wu barkeel woo xam ne daan ca mën a sukkandiku ba jaamu ko bépp alal bu xaraam yal na yàlla doxal suñ digganteeg moom barrage bu mu baari lépp alal lu dugg suñu loxo yal na yàlla wërsëgal ñu def ko fa nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala gërëm mboolem koo xam ne nii mi ngi nekk ci biir réew mi wala génn réew mi di sàkk wërsëg yal na yàlla yombalal ko wërsëg wu dagan ca tey yal na yàlla subhanahu wa taala ko yit ci la nga xam sant yàlla ca képp ko sant yàlla yàlla subhanahu wa taala dana la dolli gannaaw ba mbokk jigéen yi am nañ sunu jigéeni koñ bi nga xam ne alxames bu nekk ñu ngi fii daje di bale jàkka ji bi ngeen ñëwee fekk mu set wecc biir ak bitti yàlla na yàlla subhanahu wa taala barkeel leen yàlla na yàlla laabal leen laabal seen jaboot allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar rabbana la tuzig qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min